asalaamaaleykum mbokk yi euh, Bichri TV la télé islamique au service de Khadmi Rassoul di fésal diine fépp foo xamante ni ci àdduna bi la ci Sénégal ci diaspora bi àdduna bi wërngël képp Bichri TV di tàmbalee ci diine di yam ci diine jaarale ko ci Khadimu Rassoul seetaan leen Bichri TV Bichri TV la télé islamique au service de Khadimi Rassoul mën ngeen ko seetaan ci Periscope Facebook Twitter fépp foo xamante ne social media daf fay dem mën nga fa seetaanee Bichri TV di nga ci jëlee xam-xam di nga ci jëlee xam-xam bu jëm ci wàllu économie lu jëm ci wàllu news yi wala nouveau euh, journal télévisé bi waaye aussi li jëm ci wàllu éducation ak diine xasida yi lépp loo xamante ni que ni njàngaleem sëñ bi la incha allah rabbi di nga ko gis ci Bichri TV mën nga seetaan Bichri TV ci sa téléphone mën nga ko download ci sa application nga am Bichri TV 24/7 7 days a week. asalaamaaleykum wa rahmatullah